ci sa gox yow jàppal ne tu as toute ton indépendance d'expression waaw. kii nee na bii moom question groupée la ndaxte. Mhm. <laughs> Euh, Adama Fall dafa wax ne mooy bu mhm. APR. Mhm. je le premier opposant convoqué par le régime de Diomaye Faye. Abdoul Mbaw wax ne nous allons retourner dans l'opposition et travailler pour les Sénégalais tax keneen ki mu ne Amadou Ba ndax ni nga ko xamee ni nga ko gisee ak ni nga ko jàngatee politiquement ndax pare nañu ñoom ñooñu ndax nuru nañu ñoo xam te ne nii ay opposant la ñuy sérieux je commencerai ci affaire Adama Fall. Adama moom franchement il se donne de l' importance. Adama Fall Adama Fall importance. waaye hmm. et puis il Adama par le nouveau régime de Bassirou Diomaye. waaw Bassirou Diomaye n'a pas encore pris fonction hein. Hmm. <laughs> ça c' est régime de Macky Sall. nee na Hannibal Djim moo ko topp. waaw mais non même su ko Hannibal toppee mais nous sommes encore sous le régime du président Macky Sall. c'est pas encore le régime de Bassirou de. Mhm. c'est le régime du président Macky Sall. Badou Bassirou toogagul. waaw Bassirou toogagul c'est-à-dire que moom Bassirou moom. fal nañ ko mais toogagul Bassirou amul benn acte benn décision bu mu jël fi nekk Bassirou tey mënul wax ne wala ma procureur de la République parce qu'il n'a même pas mhm. moom loo ci lu mu ci wax Adama il se trompe et puis Adama il se de l'importance na bàyyi yooyu muy def. Mhm. ay je suis je suis convoqué ay nangam yow dañu laa convoqué demal. Ah, loo ci loo waaw man convoqué nañu ma man loo waaw. donc moom su fekkee ne kay moom dañ ko convoqué na dem yow tu es injusticiable yow nga jàpp ne nit nee na da nga ko tooñ ñu woo la mais demal soo demee tu te bu fekkee ne dañ question yaa def lii def lii nga ne defuma lii defuma lii et maintenant à la justice de prendre une décision mais franchement il faut se donner de l'importance xam nga ne dox Adama ay waxam dootuma gëm parce que il de les clés de ba déggee ba nga génnee dégg nga lim ci lim tout tout ce qu'il a dit il a lu mu waxoon auparavant donc ku mel noonu nag bu waxee lii bu subaa mu wax leneen kooku moom ay waxam franchement jarul sax jibi dërëlee Adama moom franchement c'est mon nag sama xarit la sama waay la ku baax la mais côté boobu moom franchement du ci ànd ak moom parce que il aime divertir les gens te aujourd'hui je crois l'heure n'est plus à la diversion quoi. Abdou Mbow moom loolu mu wax mooy posture de sagesse nous allons retourner dans l'opposition et travailler pour reprendre le pouvoir je crois que loolu mooy posture républicaine yow boo nekkee ci nguur pendant douze ñu gaña la da ngay dem dellu dans l'opposition xeex xool nan lay war a mën a conquérir encore le loolu mooy une posture républicaine cela ne pas dire que vous allez collaborer avec le pouvoir déedéet bu vous mettez dans une posture d'opposition républicaine surtout amul leneen. man moom. loolu laa moom vraiment je satisfait. <laughs> Ah, agréablement surpris de cette posture d'Abdoul Mbow. sama waaw mais mais mais de toute façon tu sais opposition la il faut demander au président Wade qui a fait 26 ans d' opposition. opposition neexul. ah oui gis nga bu fekkente ne jibi amuloo benn euh, comment dirais-je benn patience bi. Mhm. amuloo aussi benn stoïcisme bi. Mhm. mooy cette capacité à endurer en tout cas à, à dans la souffrance ou bien mhm. à à supporter la souffrance soo amul stoïcisme boobu cest à doo yàgg opposition. donc opposition moom jàppal ne neexul métti et que aussi li nga ciy xaar lépp mën nga ko ci sax bañ am. Mhm. parce que mën nga opposé wu ba bëgg a dee tun retourne pas au pouvoir. waaw loolu de dëgg la. mais loolu aussi xam nga qu'est-ce que ça ñoom nañ xoolaat seen doxalinu parti. Mhm. lan mooy lan moo tax seen parti bi au bout de douze ans daanu. léegi les erreurs du passé doivent être quand même les leçons du du du du, ça, du présent. lépp lu taxoon ça doit être les leçons les leçons du présent. waaw waruñu cee nekk ren. concernant Amadou Ba Amadou moom. leen rek laa koy wax. Mhm, su fekkante ne dafa bëgg nekk un homme politique. dafa bëgg a jël réew mi il est toujours vraiment dans cette posture là. opposant bu civilisé. waaw mais su fekkee loolu la man lu ma koy ñaax mooy il n'a qu'à créer sa propre formation politique parce que ce qui est sûr et certain mooy APR moom. xajatu fa danaa mel non du ko jël sax. xajatu fa de non du ko jël parce que ñi nga xamante ne ñoom jàpp nañ ne ñoom légitimement ñoom ñoo war jël parti bi duñ ko ko may la preuve xatal nañ ko. souteniruñ ko donc ñooñu duñ la bàyyi parti bi. xajamal ko itam waaw ñooñu duñ la bàyyi parti bi. donc maa je crois que tey lu ko waral a lu moom daal na wut ay nitam samp partem fas yéene dem ci jongante yi préparer jongante yi di ñëw loolu su ko defee peut-être mën naa am dara su ko defee aussi il peut même mën na drainer une bone partie de ceux qui sont aujourd'hui au sein de benn Bokk Yaakaar. Mhm. mais su bëggee dugg biir APR pour xeex ne day jël parti bi. loolu moom je crois que tant que président Macky Sall mi ngi fii gëw ma ne moom dina jël dina jël parti bi. waaw loolu daal question yi de bëri na bëri koo xam su ma ko toppee fii la ñu fanaan <laughs> mais kii nee na question personnelle. nee na hmm. Serigne su ñu la woowee RTS pour liggéey ndax di nga dem. non xam nga ji bi bu depuis boobu léegi maa ngi dégg nit ñi ñu ngi wax Serigne Saliou soleil Serigne Saliou man daal ji bi. dama ko gis ma daal ma reetaan mais li la koy. waaw mais man ce yow di au Sénégalais ji bi. moi je suis en train de je, je suis en train de gérer mon journal. waaw ah. man je gère mon journal. suñu journal yor yor léegi nag. gars yi dem leen jënd yor yor man man lépp lu may mën def. mooy faire de sorte que sama projet yi nga xam ne moom laa teg. Ah. depuis boobu ba léegi. Ah. te nguuru Macky Sall doon ma ci gàllankoor. fair de sorte que sama projet yi ma teg yëpp mujj aboutir. kon daal ci doon sonal. non lu jeex mais on a failli même fermer mon journal. la noon dañoo noonu tëj sa journal. <laughs> on a failli fermer le journal là. kon yow li ñu la tëjoon noonu ñu ngi doon waaj a. tëj journal non mais journal bi lañ bëggoon tëj. journal bi lañ bëggoon tëj on m'a demandé les conditions dans ce journal là a été nangam ak nangam mais je leur man je transparent journal bu ngeen bëggee xam ko moom dem leen sama notaire. bu ngeen demee ma jox leen référence yëpp tout ils m'ont tout demandé j'ai donné toutes na sama notaire bien sûr. dem leen sama notaire su ngeen demee sama notaire moom dana leen jox lépp cest à tout ce qui a trait par rapport man je suis pas man yor ma journal frauduleux je suis pas dans la clandestinité je pas financé par des qataris ou bien je ne pas quoi ou bien par des terroristes déedéet moi je suis clair comme le droche ça c'est mon projet dem leen bu ngeen demee maintenant ngeen ngeen ngeen ngeen xool di ngeen xam ñen ñoo moom journal bi hmm? oui parce que le problème c'était yor en réalité il y yoo xamante ne nii finalement le projet c'était quoi que Yor Yor posait un leur leur posait problème il fallait complètement l'éliminer en commençant d'abord par incarcérer son son son son son, directeur de publication c'est tout. Mmh. ñi jàppoon nañu man suñu ma tëjee que Yor Yor peut-être va en pâtir alors que man avant may dem man j'ai toutes les directives yi ma doon joxe joxe naa ko et depuis la prison je contrôlais le journal depuis la prison. Hmm. barki Rasoul depuis la prison je contrôle les journaux. comment ah, tout ce qui devait paraître dans le journal ak li ci war a xew yëpp dama doon ñëw mon assistante dafa ne ma voir quotidiennement waaw dafa doon ñëw di ma gis c'est-à-dire bon chaque jour laa koy gis. Ah, mais mais mais mais mais mais chaque fois jour de visite su ñëwee man li may wax ak moom danaa wax ak moom et chaque fois que je lui donnais des directives moom suñu demee au niveau du journal les gens appliquaient ça. Mm-hmm. donc à ce niveau là amoo ci problème man li ma nekk biir kii yëpp chaque jour aussi on m'emmenait le journal. Mm-hmm. su ma ci gisee loo xam ne dafa am quoi je bu ñëwee man leen lii ak lii ak lii ak lii lii et cela ne m'empêchait pas de dire il faut toujours respecter l'éthique et la déontologie du, mmh. journal toujours loolu moom bu ko mës a wàcc c'est pas parce que je suis en prison que les gens vont faire ce qu'ils veulent déedéet il faut toujours veiller à ce que l'éthique et la déontologie soient respectées mais on a voulu on a voulu fermer ce journal là et ce qui est grave c'est que loolu aussi Djibi ça c'est avec la complicité de certains journalistes ça c'est c'est clair. say confrères. Ah, ce sont des journalistes il des journalistes qui sont derrière moi mon arrestation qui sont allés livrer des informations yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne buñ ci duggee man man mën nañ maa jàpp mais wax naa leen ko nee naa leen journalistes yi ko def moi je les connais et qu'ils rien pour attendre parce que ce qui est sûr et mooy man dinaa contre-attaquer. ñan la ah non ça je xaaral rek dinaa parce que le régime va changer. changer le régime du système maintenant ceux qui ont ceux qui sont derrière cette arrestation là ça je vous le dis ne perdez rien pour attendre parce que man dinaa fayu ça c'est clair. déedéet ah si ça dinaa fayu c'est-à-dire que ko yóbbuwaat ci yoon les gens qui sont derrière tout ça loolu moom dinaa ko tegal. taw leer daal ah non dina leer. dina leer du fayantoo la sax mais bëgg lu leer. non dama ne ma bu dee fayantoo sax jibi naa fayu parce que c'est pas normal qu'on me prive de liberté pendant trente jours ci koo xam ne defoo dara je n'ai absolument rien fait defuma dara. def ma dara on a simplement me créer des problèmes parce que les gens pensaient que moi j'étais un proche de Sonko ils pensaient que moi je suis un proche de Sonko que je travaille pour Sonko et cetera. waaw ah, waxal nañ la ko voilà waaw mais su ma neexee ma far ak Sonko. su ma neexee ma ma ma ma ma que je sois un man nee naa leen jibi ce que j'ai écrit pour Khalifa Sall mën na mën na nekk livre li ma bind ci Khalifa mën na xool mën naa koo def livre que les gens ay se renseigner ba boore. mën naa ci bind livre li ma bind ci Macky Sall mën naa cee def xool livre je n'ai pas écrit un tiers concernant Ousmane Sonko waaw parce que simplement les gens que man su ma neexee ça c'est ma ligne éditoriale ça c'est ma ligne éditoriale su ma neexee ma jël une posture boo xam ne ni ñoom ñu jàpp ne moi je suis dans une posture d'opposant dañ koy tere ci réew mi c'est pas un délit combien de journaux aujourd'hui titre en faveur du président Macky du jeex du xaaj alors pourquoi maintenant les gens veulent man ma dem leen jënd ci yor yor lan moo tax ñu bëgg waaw parce que simplement léegi nag il pense que maintenant ce journal là peut constituer un danger je ne sais pas quoi que ne peut-être je, je waxal gars yi ñu doon jëndi yor-yor. et le jour et le jour de mon arrestation ñoom xam nañ lan na doon publier ce jour là aussi. Ah. André ah da. oui am loo waroon publier. Ah, mais xaaral loolu dinaa ko génne. jour bi ñu lay arrêté jour bi ñu lay man xam naa lu tax man on m'a arrêté. ok jour boobu. mais loolu loolu loolu garaawul de façon moom. ce qui est sûr et certain les langues moom vont se délier dans pays ça c'est clair ah oui. gars yi nañ leen àndandoo dem jënd ji ah. yoor yoor donc bu fekkente ne yéen ñuy suivre ñëpp ah yéen fi ah plus de 7000 donc je vous leen ah ngeen dem soutenir kii di euh, pendant un pendant un an d'existence ji bi je n'ai je n'ai bénéficié d'une seule publicité de l'État du benn entreprise ñi ko doon jëm sax on les a menacés ñu bàyyi ko convention ñi ma yoral convention dañu jël seen sama convention jël ko teg ko fee y a des structures ici yoo xam ne avec lesquelles j'ai travaillé xool arbitrairement ils ont dit que dossier yoor yoor gën leen ko ngeen ko fin te ñooñu moom aussi moom xam nañu après dinaa dem ñoom ci yoon ils me doivent de l'argent ils ne veulent pas me payer te ma liggéeyal leen j'ai signé avec des contrats ñoom man j'ai respecté le mien ils n'ont pas respecté le sien ah, lu tax quand même ah ah mais loolu moom jibi loolu de loolu de loolu dina leer de ñi ma ci liggéey yëpp dinañ ma pendant un an man j'ai galéré je daj naa lu ne bon jox ñu la publicité jox ñu la convention ba pare bu ci boole di bëgg a tëj sa journal pour lan. tëj la c'est comme ça qu'on encourage l'initiative privée dans ce pays ah vraiment yaa ngi. waaw waaw. tout ça parce que simplement il pense que moi je suis accointé à comment dirais-je à Sonko comme si être avec Sonko c'est un délit dans ce pays là ñun on est dans quel pays moo tax il faut que ce pays là change. nit ñi ku mu neex fu la neex nga wax fu la neex nga fal. daal sëñ Saliou ah. jox jox ma léegi référence yi gars yi ah. mën a dem abonné ji ñi dem. dinaa koy nii am nga am nga am nga kii nu mu tudd sax euh, application. yor yor non non amaguma application. mais mais à l'étranger ah. ñoo la koy yónnee nii. ndax ci ci message yi la bokk. donc nee nañu nga nga taxaw ci ñoom. application bi dinañ la soutenir. ci nu mais mais il y a une boutique d' il a une d' abonnement. suñu hmm. duggee ci yor yor. com point com rek. yor yor point com. waaw am na boutique d' abonnement. dem leen ngeen abonné fa. chaque jour ngeen di jënd journal bi. pour soutenir Serigne Saliou Guèye. ah leen dem jënd ñu. man tu sais tu sais c' est ça qui m'a sauvé ah. ça c' est à dire bon les gens de la diaspora moom ñoom surtout c' est ça. ñoo koy demandé ah. on a yor yor pour la diaspora. j' en profite pour dire à la diaspora aw ma seen fay parce que ñoom su doon ñoom mën naa jàpp ne yor yor tëj na bu yàgg. Hmm. ñoom ñoo ci jàpp ñoom ñoo jàpp ci combat bi parce que massivement ils ont pris des abonnements massivement ils ont pris des abonnements ñii ils ont pris même des abonnements annuels loolu moom ma ci génne mais c'est pas la vente physique nii day du journal déedéet loolu mënu ma ci génne. alors Yoor Yoor alors c'est notre journal yéen ñëpp nañ dem jënd ji ko ensemble <laughs> euh, donc bàyyil ma denc ñaari ki garaaw ñaari question door ko mu door ko mu ah, kiyal ma kii nee nañ la ci politique gi langue gi